yem donc méthode de calcul bu ñu ko tegee daal di ne kat échelle bi ni la demee de zéro à cent la képp koo xam ne nga gën a jege zéro mooy sa niveau de corruption gën naa yéeg bu fekkee da nga ko gën sori mooy sa corruption gën naa gën naa wàññeeku. bu ñu defee analyse comme on parle également de la gestion du président de la République euh, Macky Sall depuis 2012 boo jëlee 2012 ba 2016 amoon na benn progression boo xam ne indice bi amoon na ko maanaam.

dañaan la yaay ci biir zone